jërë ngeen jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen yéen ñu faral seetaan Yëmbël Vision TV te ñu dalal Serigne Mor Tall war a waxtaan moom ci actualité réew mi ah, li tax ñu seet si ko dalal ko tey fii ci Yëmbël Vision dañu bëgg waxtaan ci xam-xam rawatina ñi xamante ni ñooy def ñaaw ko tef yi rawatina ñi xamante ñu ngi ci danger rawatina accident yi xamante ni sonal na Sénégalais yi lan mooy problème bi ku nekk yaa ngi tiit parce que da dem ba dugg ci oto mais da xalaat ni ndax di nga wàccaat accident yi na kenn xamul lan la lépp nañ ci waxtaan dinañ waxtaan ci li jot a xew ñàkkaa ngi ci réew mi bakkan yi oto yaa ngi rey accident yi bëri na gis na nit nit yi ci seen bopp ñu ngi commencé rayante lépp nañ ci waxtaan nañ waxtaan ci làmb aussi lépp nañ ci waxtaan cheikh bi ñu ngi lay ziar. maa lay di la nuyu di nuyu Sénégal yëpp di ñaanal réew mi yàlla na fi yàlla sotti jàmm lépp loo xamante ni jafe-jafe la ak xat-xat la ak danse la ci réew mi yàlla na ko suñu borom fanq. am na solo def fi jàmm. ci barke weeru tedd wi muy weeru yent bi sallallahu alayhi wa sallam. am na solo fi ñuy commencé suñu waxtaan gis nañ ne bakkan yi wat ci 2024 bi bëri na gis na ne fan yi am na koon rey ñu koy Aziz Dabala waaye bi ñu jógee ci loolu gis nañ yeneen ñaawteef yi bëri na ba ci agression yi bëri na ña euh, ñàkk kaaraange gi ci réew mi laa ba ñu commencé waxtaan ñu door dugg ci euh, yeneen débat yi Sénégal la mooy problème bi. waaw général defoon naa ci vidéo di wax ne réew mi li Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum doon wax ne dañ ko war a sang. Mhm. sang bi ci zahir waaye sang bi ci baatin. réew mi dafa bëri ay jinne bëri ay mooy yàlla bëri ay jafe-jafe yoo xamante ni nit mënut a tudd lépp léegi nag nit ñi daal ñoo war a sàmm seen bopp aar seen bopp parce que boo gisee rey yépp ñàkk kaaraange la ci wàllu baatin kaaraange ci saayir am na ku ne xam ne ne réew mi kaaraange ci saayir am na waaye kaaraange ci baatin moo amul mm-hmm. nit ñi muslootuñ defatuñ dara génneetuñ sarax ñaanlootuñ ci seen njaboot moo tax lu ñëw rek ku ci gën a oyof bopp rek yaa ciy dem. dëgg la accident yi itam réew mi dañ war a def ñaan ci yoon yi génn ci ay sarax def ci ñaan bu ko defee rek jàmm dina am ci réew mi. nu gis ne am na accident bu am démb fee ñuy wax nangal ma. accident bi ni mu amee gis na ni seize personnes danoo ñàkk seen bakkan ba pare am na ñoo xam kenn xameewu leen. Mhm. danoo lakk ba xëm ñu gas boole leen ci benn kam suul. loolu noonu ndax ay simple accident la wala parfois dafa am lu ci rax. waaw sëriñ bi mooy li ma wax léegi rek accident yi moom. réew mi dañ war a dajale ay borom xam-xam def ay ñaan def ay sarax tali sedd buy. parce que dafa am rawxaan yu bëri yoo xamante ne ni ñu ñu wax xifrit minal jinni ñoo song réew mi. léegi nag su ma doon autorité yi dañuy dajale ay ñaankatu yàlla. Mhm. ñaan loo leen yàlla suñ deful loolu itam nit ñi nañ jël seen yoonu bopp ku ci nekk booy tukki nga aaru def say muslaay def say sarax. am na parce que bu dul loolu moom réew mi day gën a métti rek parce ay pexe nguur mënu ci dara pour arrêter accident yi. am na solo waaw pexe nguur mënu ci dara. mais bëgg naa ñu waxtaan tuuti ci làmb. ak li dal Nabou Leye ak Aziz Dabala ak Waly mi xam ne ñu ngi ci biir suuf. Mhm. Euh, Nabou Leye mi ngi ci kaso bi mais balaa may dugg foofu dafa am loo xam yaa ngi ciy yëngatu. Mhm. mu nekk seet. Mhm. ku ne xam na ne seet dafa am solo ci doomu aadama rawatina ñi xamante ne dañuy yëngu ci dara. balaa ngay dugg ci dara nga xool ko ba xam baax na ci yow waaw wala déet. nga ciy liggéey. waaw seet moom man damay wax ne du ma wax ne ma dàq seet ci Sénégal waaye bokk naa ci ñi nga xamante ni mën nañ ko mm-hmm. parce que doomu adama bi soo ñëwee dinaa am ci yow fukki bunt ak juróom benn yoo xamante ni dinaa la ci wax parce que doomu aadama bi dafa am loo xam ne mbiru boppam la ñor mbiru sëyam mbiru tukkeem mbiru njabootam mbiru yaakaaram lépp dañ la koy mun a génnee lu ci aju ci sarax ñu war na ko teg la ci yoon nit ki itam dafay toog ba mu yàgg mbiram leer mu toog ba mu yàgg mbirum lëndëm su mbirum lëndëmee nag war na koy yëgal boppam ci ay mbiram ni muy doxee bu ko defee mu dem seetlu xool lan la war a saraxe bu ko defee bu ko génnee suñu borom defal ko tawféex macha allah léegi nag wàllu rayante beeg yooyu li may wax rek réew mi nañ ko sang am na lu bari loo xam ne kay def bu ko tayee itam am na seytaane bu ko dugg ne ko defal lii mu def loolu am na solo waaleykum salaam am na solo ba tey dañuy Euh, ginnaaw bi nu waxee ci li xam te ne mooy seet war a dugg ci noob mais noob balaa ma ciy dugg dama bëgg ñu waxtaan tuuti rek Sénégal gis nañ ne Cheikh Omar Diagne ñëpp ñu koy sànni xeer mu nekk loo xamante ni kenn rafetluwul ay kàddoom am na ñoo xam sax moom lañ àndal mais nag nga gis waxam yooyu waaw waxam ji ni ma ko gisee mooy euh, wax la joo xamante ni tooñ la ci wàllu pas-pas mhm. waaye itam wax la joo xamante ne nii rëy rëy boo xamante ne nii war nañ ko mun a indil ay jafe-jafe mhm. parce que tey boo xoolee euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Fatima ne ko boo jaamuwul yàlla bu ëllëgee duma la mën mënal dara ci kanamu suñu borom mhm. kon nag maanaam dafay ñaax nit ñi ñu gën a takkuwaat gën a jaamu yàlla wala nit ki lu ko nit ku baax jur jur jur jur jur war naa mun a am euh, takku dëgër ngir gën a jege boromam ngir gën a jege jaamu yàlla mhm. mbir mi daal dafa duma ko faral tooñ na parce que dafa laal pas-pas mhm. waaye itam nit ñi nañ ko jéggal mhm. xam ne xëy na mun naa am la muy wax noonu lu baax la ci jublu mhm. leneen li passé na xaw ma ko waaye waxam ji mu wax barki démb loolu moom pour man nit ñi war nga ko war nañ ko ko mën a jéggal te jël jëlal léegi bu ko defee nag moom loolu dina ci sukkandiku bu ëllëgee lépp lu muy wax mu xam ne lii kat li ma waxoon kat ñaaw na bugguma ci delluwaat am na solo mooy tuub te tuub mooy bañ cee dellu bu ñu jógee ci Cheikh Omar Diagne ku ne xam na ne nopp dafa am solo lool ci doomu aadama. Mm-hmm. nopp nekk loo xam te ne képp ku dugg ci relation. Mm-hmm. war nga koo bàyyi xel bu baax a baax. Mm-hmm. waaye nga ciy yëngatu. lan nga ciy liggéey. waa nopp moom ñun am na luñ ci lu ñu lu ñu ci yàlla may loo xamante ni suñu waajur lañ ko jëlee waaye ginnaaw si bi dañ dem jëggaani ko jàngi ko ci àll bi dugg fu nekk parce que nopp lu jafe la nag waaye ñun am na lu ñu ci yàlla defal loo xamante ni. bu ñu ci dàqal sax mooy bi nga xamante ni da nga ñaan fu nekk mënoo gis résultat boo ñëwee ci fan yu gàtt ñu jox la résultat incha allah ci kàttanu yàlla. yàlla moom am na lu ñu ci may. Mhm. moo xam da nga bëgg a sëy ak nit ki bëgg ànd ak moom. Mhm. danga nekk ak sa jabar bëgg a booloo ak moom. da nga mhm. nekk ak sa noob sax ba say doom sax danga war a seet lu leen di. boole même say doom da ngay xool da nga leen war a noob. jeex na da leen war a noob pour booloo ak ñoom. ñu nekk benn boole say doom ñu nekk benn bañ bañante seen biir parce que famille mën nañoo bañante seen biir loolu yëpp seytaane mooy dugg seen biir bu ko defee soo defee noom nag boole leen bu dee da nga nekk sa borom kër mun nga def nopp pour booloog sa borom kër seytaane bañ a dox seen diggante dara nekku si benn bàkkaar nekku ci am na solo mhm. euh, benn bàkkaar nekku ci ñu war a continuer yow ba tey mhm. maa doon laaj sànq ci mbirum làmb mhm. làmb nekk loo xamante yéen ku ne xam na ne parfois nga gis benn bër dafay tëdd feebar kenn du xam lan moo ko daal parfois nga gis koo xamante ne dafay nekk ci ay défaites yu bëree bëri kenn xamul lan la làmb naka nga gisee waaw làmb du may faral di wax ci làmb mhm. lu bëri waaye lenn moom xam naa ko ci mhm. parce que yooyu yëpp ay sànniwante porte sànniwante liggéey yu bon yi nga xamante ni même da nga gis nit ku bëree ak nit ba daan ko am ci moom ndam waaye lam def ci moom du ko dindi du ko dindi yu ñaaw yu ñuy yu ñuy defante seen biir mooy waral léeg-léeg nga gis mbër toog ba mu yàgg mu fay fekk dañ ko dugal ci foo xamante pax moo xamante ne nii ñaan dëgg moo fa mën a génne da ngay toog mu yàgg nga gis mbër moo xamante ni ni tàkkoon ñëpp xam ko wala muy am ndam mu toog rek amatul ndam parce que luñ combat mu amoon ñu def ko ci dara wala luñ ko sànni woon moo des ci moom ba tey mhm. waaw loolu moom xam naa ko loolu moom am na lu ma ci xam lu bëree bëri bëri bëri macha allah am na solo lan mooy korte ak nit ku sànni korte ndax mën nga kaa dindi korte tey ni ma la ko mën a misaalalee sëriñ bi mos naa am kilifa gu may jàngal korte ñu dem ci garab mu ñu sànni kort gi ne ma nañ dem ba ngoon ñu ñëw fekk garab gi woo kong fekk garab gi bi ñu fay dem ci suba dafa tooy xet mhm. korte noonu lay def ci nit buñ mun nañ la ko xëy sànni bu ngoonee nga tëdd feebar mën na mën mhm. nga am ay fan mu yóbbu la mhm. waaye nag ñun korte boo ñëwee ci benn fan lañ koy dind nga sangu balaa jant bee so parce que kort moom képp ku la ne la da koy dindi te mënu ko dindi joni joni mënu kort kort mhm. kenn du ko dindi ci ay fan parce que ni mu gaawee noonu ki koy dindi noonu la ko war a mën a gaaw a génnee macha allah ba ci liggéey sax liggéey moom dañ koy dindi ci ñetti fan kon kort daal boo ko dindi faw mu gaaw faw mu gaaw ñu jox la loo xam ne danga ko koy sangu léegi mu génn léegi mhm. nga xamante ni doo fanaanoo ak moom waaye kort képp kooy dindil kort nga jox ko garab mu sangoo ko benn fan dañul xamal ne kort gi da koy rey mm, ah, ah. waaw nga ne bu ko sangoo yi benn fan dañul. kott benn fan ngay sangu mu dañ ci bis bi. bu dañu rek dalay rey da lay jox sangatu kott nga dem sangoo ko ay nan la ay bi fan kooku mënut kott. kott da ngay jox borom léegi léegi mu sangu léegi léegi mu deñ léegi léegi. mu yëg na leen man mi am na lu génn ci man. macha allah waaw. am na solo ci loolu gis nañ benn jaaykat diw boo xam ne gis nañ fan yëpp gars yi di wax naan dafa nekk ci ci loo xam ne ay jafe-jafe la moo xam xam na ko wala xamu ko ndax loolu dafay am parfois xool nit ci internet xam ne kii nii mi ngi ci danger. Mm-hmm. waaw kooku dafa yàgg nekk ci danger. Mhm. parce que man dama ko yàgg di wax. Mhm. képp kuy feeñ ci internet di wax surtout ci TikTok bi nga xamante ni xamuñ fallaxi xamuñ si xamuñ ayatu kursi xamuñ dara luñ léemoo tooguñ ci baatin yaa ci danger. Mhm. léegi nag ku ko ci bëgg di ci am ndam yëkkatiku te doo daanu da nga war am kaaraange bu baax a baax a baax a baax jóg ci sa bopp taxaw ci sa bopp. mbirum kaaraange lan nga ci liggéey aussi. juróom-ñaari fan nga koy sangoo mu garanti la ñeent fukki at. am nañ ci it kaaraange goo xamante ni boo ko sangooy képp ku la jógal gumba dootul xoolati wallaahi képp ku la jógal di lay liggéey dafay gumba dootul xool am na solo xam nga xam nga noonu boobu gañe nga ko ba pare mm-hmm. am na kaaraange goo xamante ni képp ku ko sangoo boo ko sangooyee képp ku jóg ci yow di dem def ci yow lu mu gàtt gàtt gàtt du def ci yow li muy li du xëy di dem di la di la jógali te amul mm-hmm. damm-damm mm-hmm. waaw yooyu yëpp am nañ ci ay ay façon yu bëree bëri bëri am na yoo xamante ni képp ku la liggéey faat weer wu mu la liggéeyee balaay dee mu faat macha allah amaso amaso mhm. bu ñu jógee ci loolu samp doomu aadama ñu bëree bëri di ko wute fu ne mhm. lan nga siy liggéey waaw doomu aadama moom samp ko lu jafe la waaye ñun am na luñ ci jëlee ci mag ñi ci tur yàlla bu ñuy wax xayul xayoom ci lañuy ñuy nit ki ba nga xamante nii walaw kaana maqaamal wilaaya donte maqaamal wilaaya awil xutbaan yu aw mulku dunya awi tijaara mhm. maanaam donte da nga bëggoon nguuru àdduna wala martaba ci yàlla buñ la ko defalee insha allah wala commerce bu yëkkatiku boo xamante dootoo daanooti mhm. wala dangay ngay football bëgg sa tur ekkatiku wala dangay ngay wéy bëgg sa tur ekkatiku suñ la ko defalee insha allah bu soobee yàlla ci kattanu yàlla yàlla dina la yëkkati ba ñëpp seen la mhm. te doomu adama du la mun a daaneel am na solo bu ñu jógee ci loolu papier yi am ñoo xam dañ koy wër ba sonn ñu ne ñoom mën noo am papier seen bundee dëgër mhm. mbirum papier lan nga ciy liggéey waaw papier moom fa laaw ba tey am nañ am na lu ñu ci yàlla defal képp koo xam ne danga bëgg këyit wut ko ba sonn ci kàttanu yàlla suñ la joxee liñ lay jox bu soobee yàlla yàlla dina la ko yombalal parce que sayaj'alu llaahu ba'da usrin yusran fa inna ma'al usri yusran mhm. ginnaaw jafe-jafe bu nekk yomb-yomb nit ki lépp lu mu bëgg mu jafe incha allah bu ñu ci denkee ñaan ñu ñaanal la ci yàlla yàlla dina ko yombal ba ni ko bëggee nu ya ñaanal nañ ci ay nit ñu bëri ci wàllu kayit kayit mm-hmm. jafe woon leen ñu am bitim réew ay ñaar fukki at surtout ñi nekk Amérique mm-hmm. ak ñi nga xamante ne ni dañ nekk Angleterre ak yeneen réew yi nga xamante ni kayit dafa jafe mm-hmm. ñun ci côté boobu sax fa lañ gën a saweere mbir lu mu jafe-jafe daal képp koo xam ne da ngay wut ñaan ci wàllu kayit wala ñaan yàlla ci ubbeeku ci mucc boo ñëwee jàkkaarloo ak man ñu jëflante incha allah ci diir bu gàtt suñu borom xettali la dimbale la loolu yëpp ci doole alxuraan ak ñaani waajur ak tegtalu mag ñi dem fu nekk gëstu indi xam-xam pour jëflante doomu aadama yi ci loolu lañ nekk. am na solo mbirum euh, mbirum rab aussi nekk lu sonal askan bi. jëga gis jigéen yu bëri bëri pour nu am jëkkër sax dafay jafe lan ngay liggéey ci loolu. dëgg la wàll woo ba tey fasa euh, kasaalika naka noonu yàlla dimbale nañu am nañ ci ay tegtal am na benn garab bu ñuy wax caay-caay ci àll bi. la ko mag ñi tuddee am na lu ñu ciy liggéey loo xamante nii bu buñ la ko defalee boole ko guru takk kuñ takk ba pare guru gi nga koy booleel def ci soowu nag wala soowu xar wala soowu béy tuuti rek sangoo ko ci weer woowu incha allah doo ko génn te amuloo borom kër. macha allah ba tey dinañ xool sa mbir xool ndax raba la téye wala tëju tëju la si wàllu sëy wala liggéey la lu mun munti doon. am na feneen fu ñu lay jaarale nga njëkkee loolu si sa yaram loolu dañ ba pare ñu soxlaa jox loolu noonu góor ñi wuyu si la na seet ki nga xamante ne nii mooy tombeek sa bëgg-bëgg nga sëy ak moom kooku moom yàlla defal nañu ci bunt macha allah yàlla ci diir bu gàtt. am na solo daanaka li ñu amoon ci waxtu léegi mu jeex waaye duñ fàtte benn yoon feebar yi. Mhm. hémorroïde ballonnement ndoxum siti mhm. lan nga siy liggéey. waaw ba tey damay wax ne côté boobu tam am na lu ñu ci yàlla defal ci wàllu hémorroïde képp koo xam ne da nga am hémorroïde muy bu génn ak bi nga xamante ne nii bu nëbbu ci kàttanu yàlla suñu borom dimbale nañu am nañ ci saafara. képp koo xamante ne nii itam wàllu néew kàttan daf ci ànd néew kàttan am nañ ci loo xamante ne nii loo xamante ni yombut a gis loo xamante ni boo ko jëfandikoo bu la neexee yoon bu njëkk bi ngay àgg si sa soxna mun nga ko bañ sa soxna mun na ko bañ a xàmmee ak sa yoonu ñaareel hmm. xam nga képp kuy sëy moom bëgg nga soo àggee nga waajaat àndaat ak moom muy sa deuxième yoon bi ngay ànd ak moom hmm. waaye nag yàlla def na ci kéemtaan ba nga xamante ni yoon wu njëkk bi ngay àgg mun nga ko maanaam sa première daanu mun sax na si mun na ko bañ a xàmmee ak sa deuxième daanu mm-hmm. maanaam fi ngay wàccee rek ak fi ngay yëgaatee bu la neexee nga boole ko mu nekk benn te sax na si mun na ko bañ a xam macha allah te lu simple la danga koy jëfandikoo amul eh, side effect amul effet secondaire amul dara ku nekk mun na ko jëfandikoo mag mu am juróom-ñaar fukki at ak ku am téeméeri at xale bu am bu ndaw ñëpp mën nañ ko jëfandikoo du lor kenn parce que liñ ko jëfandikoo kooku baatin la Euh, mag ñi dañ ko daan def di yore ay ñeenti soxna te képp ku ko jëfandikoo doo mos sa tële si sa dund te soxla si ngay àndal jëfandikoo ko sax kooku dafay gën a am xemmemteef ci yow gën a am bëgg-bëgg ci yow loolu moom am nañ ko ci euh, di wax ne rek ñu ngi woo jaamu yàlla yi pour leen dimbale leen seen seen soxla yi sonn nañ wër nañ seen xaalis jeex na ci àll bi ñun ku ñëw jëflante ak ñun bu soob yàlla di nga kontaan euh, bu soob yàlla am na solo dafa mel li amoon ci waxtu jeex na waaye fi ñuy tàggatoo rek mooy mbirum jaaro ñu tëj waxtaan bi waa jaaru moom am nañ ci lu yéeme yéeme loo xamante ni yombut a gis parce que jaaru man am naa sama waajur boo xamante ni am naa ci moom jaaru boo xamante ni képp ku ko yore bu soobee yàlla lépp looy yëngatu dina dox ba pare dafa ànd ak foqet képp kuy jaay. Mhm. dafa baax ci yow. képp kuy bëgg kuy wëy bëgg tur jaaru bi baax na ci yow ku bëgg ubbeeku jaaru bi baax na ci yow lépp looy yëngu daal bëgg ci ubbeeku ak yëkkatiku jaaru bi baax na ci yow. ba tey itam jaaru bi ku bëgg mbooloo yore ko di nga am mbooloo ku bëgg kaaraange yore ko même sax jaaru bi bu amoon nit ku am jafe-jafe mun nga ko tekki jox ko ko mu dem nga abal ko ko bu ñëwee delloo la sa jaaru parce que tey dafa ànd ak kaaraange boo xamante ni même ku ku ñuy fexel ci wàllu yoon ak lépp boo yoree jaaru bi incha allah jaaru bi daal paaka ñaari boor la dalay musal ba pare mosal la. macha allah waaw ci kàttanu yàlla. am na solo am solo la. Euh, dafa mel li amoon ci waxtu jeex na sa jàngat ci réew mi. di wax ne réew mi yàlla fi yàlla sotti jàmm ki nga xamante ni mooy président Bassirou Diomaye fay yàlla na ko yàlla eh, jox mu jiite réew mi jox na ko ba pare mu nekk jiite bu sedd guy yàlla def réew mi ci jàmm indi fi jàmm dolli fi jàmm indi fi xéewal gu bëri bëri bari bari bari bari bëri nag boo xamante ne nii maanaam réew mi ñëpp dañ ci gis seen bopp ki nga xamante ni mooy premier ministre am bi Ousmane Sonko moom itam yàlla ko yàlla aar sàmm ko ékkati ko defal ko ubbeeku gu yaatoo yaatu ba nga xamante ni lépp projet bépp bu mu projet bu mu bëgg indi ci réew mi suñu borom jàppandal ko ko. Mhm. ñi nga xamante ne nii itam ñoom ña yàlla xañ ñu ñàkk yàlla jox leen xolu muñ xam ne nguur yàlla moo koy jox ku ko soob tabaaraka la si bii diil mulku wa alaa kulli seen qadiir qul illaahumma maalikul mulki tuutul mulku man tasaa wa tanzi'ul mulka mimman tasaa wa tu'izzu man tasaa wa tuzillu man tasaa ba ay bi jeex yàlla moom nguur moo koy jox ka neex bu fekkoon ne nit dina ko jox doomam konoon da ngay gis ne képp ku falu boo fiy jógee da koy bëgg a jox sa doom wala sa rakk wala sa kii waaye askan wi ñooy tànn askan wi tànn nañ ba pare ñu tànn nañ gëm ne eh, tànnul boppam yàllaa ko tànn yàlla na ko yàlla jox doole ak kàttan ba mu mën a jiite ci jàmm réew mi sedd guy bu fi bakkan tuuru bu fi xeex am bu fi dara am lu jàll def fi jàmm kon di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal ñëpp jàmm julli yàlla nañu am jàmm waaleykum salaam wa